waaw Leewtoo production yàgg fi c'est vrai que année bi nañ démarré suñu activité événementielle ci làmb ji donc dañuy dañu dañuy toog en tant que ak des amis ñu discuter on a vu que <coughs> président comme ñun dañu dañ koy jàppale ñu gis ni président est en train de de de mettre en place une structure une une, infrastructure bu toll nii arène nationale bi mu nekk benn souhait boo xam ne acteuru làmb soxla woon nañ ko donc durant des années am ay président yu fi jaar taxawaluñ ko moom mu ñëw si volonté mu teg pose première pierre donc ak ànd ko moo nu la lutte mi promoteurs yi amateurs yi lutteurs yi ñoom ñëpp ñu ngi koy suivre si télé bi ñu tom toog def pose première pierre donc ñu commencé démarrer construction bi ñu toog quelque mois ñu gis ñi nga xam ne ñoo demoon pour teg pose première pierre mi quelques promoteurs génn si si si si si làmb ji donc mooy loolu ñu jàpp ñun suñu xalaat bañ toogee réfléchir ñu ne ñun lii nekkul la nga xam ne day avancé loolu làmb parce que tey jii président bu naree jël 32 milliards def ko si budget bu toll nii te ñi ko war a mettre en valeur ñi ngi ciy retiré wu donc c' est pas normal loolu moo ñu indi volonté boobu moo ñu indi ñu dugg ci làmb ji pour jàppale président jàppale aussi la monde de la lutte parce que bi fàttali que monde de la lutte ñu siy nekk du dund ay jeunes la ñu ñëw def ko métier yaakaar ci. donc yooyu aussi bu ñu leen seetaanee du lu baax si ñoom. bon loolu loolu nit ñi yàgg nañ ko am nga àdduna moom toujours nit am na ñu lay jàppale parce que tey tiktok point sn bi ku ko mënti moom tamit derrière am na ñoo xam ne ñoo ko jàppale donc bu dul xalaat di moyen di di di di leneen jàppale la rek l'essentiel mooy am ñu lay yokk doole pour nga dem donc loolu aussi c'est la même chose c'est que c'est un projet bu ñu mûrir teg ko pour pour à long terme donc teg nañ ko aujourd'hui yàlla def. ñu amoon un budget pour jël cachet jël ko affiche yu yàlla def na affiche def nañ ko ba si dernier affiche dernier affiche bu ñu def mi combat royal bi bokkul woon en fait suñu programme parce que am na suñu yeneen naataangoo promoteurs yi fi nekkoon taxawal ko depuis deux ans mënu sotti donc bañ koy taxawal ñu nekk ñoon ci nekkuñu woon promoteur donc bu yàlla defee tey ba combat boobu amatul mu nekk affice bi ñëpp di réclamer donc ñun ñu mën ko war a mën a jël si lañ def ay démarches pour récupérer ko pour mën ko pour mën ko taxawal pour askan bi et pour amateur li waaw xam nga Gaston moom comme ni mu koy waxee souvent naan Pape Thialy suñu jamono jarbaat la euh, option la rek xam nga àdduna moom nit ku nekk aussi foog nga accepter accepter option yu muy jël donc option la jël jàpp na ni peut être moom day xaritu day jàppale président donc jàpp na ni xëy gisee na ni bu defee combat boobu dee participer di jàppale président donc da nga koy da nga koy nangul te aw ma ci problème nit ñi moom tout le monde est xool yow li nga xam ne option nga jël nga nga def ko. no xam nga man na man tant que maa ngi ji moom aw ma mbër aw ma du ma pronostiquer ci ay combat parce que moi je veux être dama am ay principe yoo xam ne man noonu laay doxee dans ma donc li ma bokk lu nekk bokk ak ay nit du ma ci jéem a ut ku ma ciy faral wala ku bokk ak man wala di ci ay pronostic donc ñoom ñëpp ay champion la pour man ku mën rek le meilleur que le meilleur gagne nañ bàyyi xel ci ay principe yoo xam ne principe bu làmb la mooy làmb àndut ak violence tey jafe-jafe yu ñu am ci làmb yu bëri violence bi ci la bokk ñàkk respecté engagement yi ci la bokk ñàkk respecté engagement mën a nekk ci promoteur comme mën a nekk ci ci ci ci lutteur bi comme mën a nekk l' entourage du du lutteur donc ñaar yooyu jàpp naa ni mooy aujourd'hui nga xam ne mooy freiner lamb parce que lamb promoteur mën na am initiative am benn montant bi pour def lamb mais li koy complété doole boobu sponsor la donc sponsor bu neen ba retiré wu rek c'est parce que gisatuñ seen bopp ci ci li ñuy def parce que sponsor bi am image am du bëgg image am di jaxasoog violence du bëgg image am aussi war ko def à 17 heures mbër war a ñëw 17 heures ñëw 20 neexu ko parce que bu ñu nee 17h kenn ki ñëw kenn ki ñëw kenn ki toog yor yor yor yor par exemple euh, logo logo soit survêtement wu sponsor bi tardé une heure temps loolu neexu sponsor. donc voilà les deux yi nga xam ne deux aspects yoo xam ne tey jii moom mooy freiner mooy freiner làmb ji parce que on a fait le tout des sponsors toujours même chose la ñuy wax la violence ak li nga xam ne le non respect des engagements. mu nekk loo xam ne ñun en tant que promoteur man moo tax j'en profite si tactic point sn pour lancer appel que violence bi ñu jëm ko éradiquer parce que ñun ren ba ñu ñëwee bokk na suñu objectif def lamb yoo xam ne dañ koy éradiquer pour éradiquer ko y a deux choses d'abord c'est l'entourage des lutteurs il faut nga assainir ko yow ñuy tëgg di lañ fay xaalis di lañ jox alal yàlla di war a imposer ñoom buñ ñëwee nu ñu war a comporter woo c'est vrai que ñoom ñëpp am nañ comportement yu baax mais yow ni nga bëggee sa événement dem yaa lañ ko war a wax ko ñoom ñu comporté noonu pour sa événement mën a jàll du am violence parce que tey làmb soxlawul violence ay ñaan làmb coow dafa ànd ak coow yëpp ay détails la pour man du loolu parce que am na coupe du monde da nga nii ñu ngi ko fiy def ay milliards et milliards de draine des milliards et milliards de personnes te pourtant amul laajul coow te bu ñu gëm ni làmb dafa laaj coow làmb làmb rek la dañ ko activité sportive bu ànd Euh, bu ànd ak culture muy suñ cosaan suñu tradition mun nañ ko def mu neex nit ñi seraan ko du am violence du am dara parce que loolu mooy tax tey sponsor yi ñëw donc c'est regrettable ñu gis seen bu jamee noonu face to face entre Balla Gaye boobu euh, ak ak kii Balla Gaye Modou Lo mu am violence boobu lu ñu naqarlu la di ko di ko regretter xam naa c'est du lu kenn bëgg xëy na yàlla tax mu mu am mais nañ si gën a veiller daal vraiment si combat boobu loolu rek laa mën a am lu ma si mën a wax le reste moom nañ ko bàyyi si loxoy yàlla.